Euh, jégalu bu bu baax ci yaxte bi nga xamante ni nemmeeku ngeen ko ci ndorteelu émission bi di leen di nuyu euh, tey euh, ziar bu baax ñi ñuy seetaan te safoo émission bi euh, ñuy waxtaanee li nga xamante ne rek mooy rapport ITIE 2019 di taxawaay bi nga xamante ne rek yenn entreprise yi yëngu ci wàllu secteur minier ak hydrocarbure def nañ ko ci wàllu yorin bi itam dinañ ci ñëw ak suñu gan docteur Moustapha Fall nekk responsable des affaires juridiques bu ITIE docteur dala jàmm ci plateau également ki ñu bokkal plateau bi Binta ziar na Binta ziar naa la. dellu ziar Aram di nuyu euh, suñu gan gi docteur di nuyu les téléspectateurs. jërëjëf si kanam euh, ñaareelu pàcc bi dinañu ñëw ci beneen docteur Babacar Diop nekk euh, jàngalekat ca daara ju kawe ja ca département philosophie bu ko defee ñu waxtaanee bésum tey li nga xamante ne lan lay représenté euh, ci taarixu Sénégal dina am solo 1962 la woon en 17 décembre bu ñëwee rek ñu gën a yaatal foofu laay yam ñu njëkkee ci li nga xamante ne moom laa doon wax sànq muy ITIE balaa maa ñëw ci rapport bi ITIE lan moo ko tax a jóg. waaw jërëjëf Ndeye Aram question bi nga laaj ci am na solo. ITIE euh, e, euh, buñ koy tàggat dafa nekk euh, norme bu nga xam ne àdduna la wër maanaam norme mondiale initiative pour la transparence dans les industries extractives ci tubaab maanaam moom li ko tax a jóg mooy caytu réew yi nga xam ne dañoo am dañoo am meññeef ñu jàppale leen ba yorin bi rafet léegi Sénégal nag daf ci bokk depuis 2013 léegi nag boo ci bokkee norme bi dafa la wax ne at mu ne war nga génne téere boo xam ne day xaatim meññeef bi ñaata la ñaata la jur ak entreprise yi nga xam ne ñoo fi nekk euh, ñaata lañ contribuer ak lan moo dem ci gaf ak état ak état tamit nan la koy jëfee donc ITIE daal boo xoolee euh, dafa mel ne euh, seetu nattukaay mais gis na nañu daal ci àdduna moo nekk nattukaay bi gën a wér pour bëri leen ne yorinu meññeef yi meññeef mooy lan boo nee meññeef rek. waaw mais maanaam ni ñu koy déggee mooy ressource naturelle. ressource naturelle daanaka moom lañ gën a miin maanaam lépp lu nga xam ne dafa nekk si suuf xam nga Sénégal léegi dañ ne ressources yi askan wi ko moom les ressources appartiennent au peuple léegi boo bokkee ci ITIE nag daf lay wax ne lépp lu nga xam ne moo xam muy contrat booy joxe moo xam xaalis bu nga xam ne société yi fay nañ la ko da nga ko war a génne maanaam accès à l'information maanaam lu ñu naan transparence hmm. xam nga transparence dafa nekk lu nga xam ne. maanaam moo gën a wér ci gouvernance xam nga gouvernance dafa bari mais balaa nga naan redevabilité maanaam est-ce que ñi nga xam ni ñu ngi koy yor ñu ngi koy doxal na mu waree dañ naan na leer d'abord maanaam nu muy leeree mooy lan ñu génne luy xeetu contrat la compagnie yi fay lépp lu nga xam ne en tout cas ci meññeef bi la jógee ITIE da koy natt. rapport bi nga xamante ne génne ngeen ko naka ngeen di defee nattin boobu. waaw loolu laaj bu am solo la ndaxte euh, day faral am ñu naan ñu yéen est-ce que information yi ngeen di génne wér na ñoo ne leen ñun de ni ñuy liggéey mooy entreprise yi seen bopp dañ naan leen euh, boo leen xaatimee contrat état ba commencé seen activité minière wala moo xam pétrolière lépp loo xam ne da ngeen ko fay état dangeen dangeen koy déclarer. te déclaration boobu nag doo yam yem ci ñëw rek génne ko de dañ naan leen dangeen ngeen di wut commissaire au compte boo xam ne moom day day day dëggal ne lii wér na signé ko maanaam bu entreprise bi dafee fausse déclaration mën na am doom yu ko yu ko dal yemuñu foofu lépp lu nga xam ne moo nekk li ñu naan gaf ak état xam nga état am na li ñu naan impôt DGID am na aussi trésor DCPT am na également la douane lépp ñu nga xam ne ñoo nekk régie financière ci état war a war mën a jël xaalis ñooñu tamit dañuy déclarer ITIE ñooñu bu ñu déclarer ITIE dafa am kuréel gu ñu tuddee Cour des comptes du Sénégal maanaam juridiction bu nga xam ne tey jii ni moom lañu dooleel pour mu mën a saytu effectivement nangamu alal moo dem ci gafak état. mais ñaata ñaata bu ñu koy xayma tey si seen rapport bi. waaw ñaata la généré comme xaalis. waaw ressources yi waaw gis nañ ne. Euh, li génn 2019 bi mooy yokk na euh, léegi ñu ngi ci 161 milliards maanaam téeméer ak juróom-benn fukk ak benn. loolu mooy li nga xam ne secteur bi euh, génne na ko ci données yi nga xam ne liggéey nañ ko muy atum 2019. secteur minière hydrocarbures. waaw boo ko boolee. waaw mais secteur bi nga gën a xam ne mooy indi lu muy ëpp secteur minier la. waaw boo ko xoolee ci ci ci chiffres yi nga xam ne yor nañ ko ñu ngi ci ay daanaka 137 euh, euh, milliards boo xam ne moo moo moo nekk ci wàllu mine bu dee wàllu hydrocarbure nag ñu ngi ci 24 milliards. mais waaw li li koy li koy firndeel mooy sunu réew. daanaka pétrole feeñ na fi ak gaz waaye boo xoolee entreprise bu nga xam ne moo fi nekk di yëngu ci wàllu gaz a production parce que pour ñu mën impôt bi gën a mën a dox il faut production bi am benn entreprise bu ñu naan ne Fortesal moo tax wàllu hydrocarbure wéyewul xanaa at yi ñu jëm waaye bu dee mine nag entreprise yi ñu ngi fi di di ñu exploité ñu ngi fay li ñu naan demence minière waaw moo tax moo tax mu ëpp donc léegi contribution bi nag li muy joxe rek mooy xam nañ ne léegi mën nañ quantifier li nga xam ne moom la entreprise yi di dugal xam nga entreprise saa yu ñëwee day gën a bëgg am lu ñu naan euh, licence sociale euh, euh, d'opérer maanaam permis sociale parce que boo leen xoolee communauté yu ci bari dañuy jàpp ne compagnie yi ñoom xëy na amaana dañuy ñëw rek pour nii amul leen lu leen tënk waaye moo tax dañ naan leen lépp loo xam ne xaalis la lu dugg exemple bu ma leen ciy jox rek moo moo mu gën a leer ci wàllu hydrocarbure am na contrat bu nga xam ne état du Sénégal xaatimoon na ko ak Total ci biir contrat boo leen fa demee dañ ne total dafay engagé wu am xaalis boo xam ne da koy jox léegi xaalis boobu rapport ITIE wane na ne fay nañ deuxième tranche bi maanaam am na 5 milliards yu nga xam ne tey jii moo nekk loo xam ne mooy financé institut national pétrole et donc maanaam ñun boo xoolee. mais 161 milliards yooyu fan la jëm ci keesu état bi wala ci. waaw xam nga xam nga li am solo léegi mooy sunu sunu sunu wàllu yoon xam nga déggoon ngeen ay jamono yu yàgg ñuy wax ay coowalu bonus ak yooyu. Mm. waaye léegi loi bi dañuy bonus boobu noonu. bu buñ ko xasee ba def ci contrat day dem ci gafak état léegi ITIE nag liggéeyam mooy day caytu est-ce que gafak euh, est-ce que juróomi milliards yooyu noonu compagnie bi war a euh, fay état jël na ko est-ce que dugal na ko biir trésor est-ce que état utiliser na ko à des dépenses parce que ñun li ñuy gën a xool mooy chaîne valeur xam nga boo jëlee ci wàllu mine pétrole gaz dafa am pàcc yu bari pàcc bu ci njëkk mooy joxinu contrat bi waaye bu ñu joxee contrat bi ñun dañ naan na contrat bi génn léegi bu génnee du ñu foofu danañ naan léegi ci wàllum fiscalité impôt li nga xam ne moom la société di fay nañ ko génne ci wàllu aussi production maanaam bu ñu nee or bi wala phosphate bi données yooyu noonu yi ko entreprise bi di produire ñun dañ naan na génn léegi du ñu am foofu de mais dañuy naan entreprise bi aussi li nga xam ne da koy def ci wàllu réhabilitation wala mu nga xam ne da def ci wàllu contenu locale wala wàllu responsabilité sociétale d' entreprise li ñu naan paiements sociaux yooyu yëpp ñun dañuy fexe ba bu génn parce que ñun dañ ne chaîne de valeur bi it loolu lay gën a xool contrat bi ni ñu koy joxee ba ci njeexintal bi cappandal bi askan wi ñu mu am mu am mu am mu am jeexintal ci ñoom. alors ak léegi aéroport génn na fi ba tey ñu ngi ci 2019 coowal contrat mu soxal pétrole wala mu soxal li nga xamante ne mooy euh, secteur minier bi dañ ko fi dégg. fer de la Falémé ñu ngi koy fàttaliku wax nañ ko fi ak kuréel gu mel ni euh, Tosiyali yi ñu dégg ko fi en tout cas bi ko fi député bi ko fësal waxee amuñu ci lu gën a leer boobaak léegi. Euh, Petro-Tim ak yeneen ak yeneen dossier yooyu moom xanaa yéen saytu woon la. waaw xam nga ITIE liggéeyam euh, dañ naan ñun suñu taxaw taxaw maanaam dafa am lu ñu ko bokkal ñu tuddee leen euh, parti prenant moo xam muy état. Mm. moo xam muy société civile. moo xam muy aussi compagnie privée yi maanaam kuréel gu ñu kuréel gi ñu am kuréel googu ñi ma lim yëpp société civile ñi ngi ci biir état ñu ngi ci biir compagnie ñi ngi ci biir léegi. ci wàllu contrat yi ITIE boo xoolee eh, rapport bu mu bokkoon na ci mu njëkk a génn 2014 moom li mu njëkkoon a digal li mu njëkkoon digal boo xoolee dañu woon maanaam lépp loo loo xam ne euh, wàllu contrat la nañ fexe ba mu génn moo tax boo leen xoolee quinze euh, publication des contrats nekkoon sujet bu am solo sunu réew ba nga xam ne ITIE bi mu bi mu defee liggéey contrat yooyu dañ ko génnee moo tax léegi. boo demee ci contrat yooyu noonu lépp loo bëgg a xam ma nga fa. parce que li li li li ñuy fàtte saa su ne mooy ITIE moom mënul remplacer yeneen corps de contrôle yi mais ITIE lu muy def information yu muy génne dafa nekk information yu nga xam ne mën nga ko opposer képp ku nekk ci réew yi maanaam mën nga ko opposer état mën nga ko opposer parce que administration d'état ay cour de comptes ak ak compagnie ak ak ak ak administrateur indépendant boo xam ne ñu bari duñ ko gis cabinet bu indépendant boo xam ne international mooy liggéey. def rapprochement xool doon mais yéen transparence ngeen di gën a xool euh, xaalis bi ndax euh, ndax jaar na yoon euh, ni ñu fu mu war a dugg ndax dugg na fa est-ce que mais si seen biir rapport yi seen biir liggéey saytu ngeen surtout dans le secteur des mines ndax ñi ngi joxe liggéey ndax mi ngi générer emploi pour les jeunes waaw xam nga boo xoolee secteur minier mën nga ni sax secteur industrie active maanaam du génne liggéey lu bari boo xoolee mën nga jël projet minier nga xool boo xoolee vie bi li ci am emploi amaanam du may bu matee deux cent tamit mënta du weesu téeméer bariwul lu ko lu lu koy lu koy firndeel maanaam lii gën a joxe liggéey euh, lu ñu tuddee continue local la ñu ngi koy jéem a sax tekki lu mu war a lu mu war a doon ñu ngi koy wax mais continue local maanaam euh, jël li nga moom wala wala sa moomeel am na ñu koy wax sax li contenu local boobu la lay laaj mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi nga xam ne mii nii nef-nef wala indi industrie yi nga xam ne ñu ngi fi lu mel ni ay PME ñooñu bu ñu amee jumtukaay yu doy danañ mën a fexe ba compagnie bi lépp lu mu soxla du ko jéggaani moom moo xam mu nekk prestation de service wala fourniture de biens et services ndaxte contenu local tey jii boo xoolee rapport bi ñu génnee 2019 euh, lépp lu nga xam ne compagnie yi nekk Sénégal fay nañ ko mi ngi ci 891 milliards 211 milliards mu ngi dem ci ay nationaux te maanaam amaana sax buñ gën a xool dinañ gën a méngool moo tax foofu ITIE mi ngi insister pour que pouvoir public yi ñu gën a xool secteur boobu maanaam li ñu naan secteur sous-traitance parce que tey ji dafa am ci projet bu nga xam ne ñu ngi ciy liggéey tey sax boo xoolee euh, lancement bi loolu moo ko gën a béral maanaam li ñu naan bénéficiaire effectif bénéficiaire effectif mooy mooy lan mooy nan la ñuy fexe ba xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw société yi nga société mën nañ ko créer mu tudd Ndeye Aram Binta euh, euh, te fekk ne yéen moomu leen ko léegi sous yi nag bu ñu ñëwee lépp lu nga xam ne njumtukaay la te compagnie bi soxla ko ñooñu noonu mooy ñan léegi nag it yéene léegi kon état du Sénégal dafay teg registre boo xam ne day permettre képp ku nekk société booy laaj titre ak mu mënti doon ñu xam yow yaay kan nom prénom nationalité pays de résidence te loolu dana fexe état d'abord mu gën a sécuriser les ressources mais dana fexe. état am pouvoir de régulation parce que muy administration minière. mais état am na volonté justement euh, li ngay wax ni yëpp mu def ko transparence boobu parce que gis nañ ni xaalis bi euh, les ressources euh, du wax sax minière seulement ak yeneen yeeg yeneen mi ngi générer beaucoup beaucoup d'argent mais dafa mel ni li ci ëpp dañ koy yóbbu. bitim réew. waaw xam nga ñun li ñuy gagné bëriwul employé bëriwul dëkk yi nga xamante ne am na des ressources naturelles de moo ëpp taux de chômage. waaw xam nga li nga wax dafa am solo mais volonté l'état laay njëkk avant may ñëw ci li nga lu tax impact bi noonu mais volonté état ñun nuñ koy nattee ci ITIE dañoo gis ne depuis ITIE ñëw fi. recommandation yi nga xam ne ndaxte ITIE bu defee réforme ba pare danaan ah ñun kat xalaat nañ ne lii bu ko état defee dana gën a ñoŋal gouvernement ndaxte bu ñu adhésion volontaire la maanaam réew yi ñooy xool réew yi ci bokk bariwul Sénégal boo xoolee bi ñu ci bokkee bi ñu ko njëkkee validé 2018 dafa bokk ci réew yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo maanaam seen yori ni ressource naturelle en tout cas respecté na li it ya digle moo tax volonté boobu nu muy manifesté woo mooy day xool ne gis nañ dëkk yu bari nit ñi dinañ bëgg transparence mais volonté politique amul lu tax parce que état bi du joxe moyen administration yi duñ joxe information confidentialité lañ lay wax pouvoir public aussi duñ ci dugal mooy mais gis nañ ne Sénégal boo leen xoolee am na conférence mondiale bu ñu defoon sax ci propriétaire état du Sénégal moo d'accordoon ñu def ko fi état du Sénégal gis nañ ne aussi à chaque fois mu ngi jël ay ay boroom borom tànk ñu nga xam ne seen seen seen seen tur kawe na di leen tabb ci ci kuréel googu mais loolu lu muy lu muy bëral mooy day gën a yombal liggéey bi parce que ñoom dinañ am leadership boo xam ne dinañ mën a luñ laajte ñu jox leen ko donc volonté politique bi ñun gis nañ ne. recommandation yëpp réforme yi yëpp jàll muy code minier gis nañ ne 80 article 95 96 léegi dañ ne bépp entreprise bu fi nekk da ngay déclarer ITIE gis nañ ne tamit interdiction de conflit d'intérêt dugal nañ fa gis nañ ci aussi code pétrolier léegi nee nañ ne appel d'offre la def gis nañ ne commission d'examen de négociation des contrats wax nañ ne aussi dañuy déclarer bénéficiaire effectif ak yeneen yu ma mën a lim muy contenu locale bi maanaam réforme yooyu yëpp dañoo gis ne ku ci dëppoowul ak loolu lan moo la xam nga dafa am lu ñu naan fonction de régulation te loolu état moo koy assumer nan la koy assumer état moo mën a xool compagnie bi fi nekk est-ce que li nga xam ne daf nañ ko ci contrat mu ngi koy respecté wala respecté ko bu ko respecté wul état daal di jàmmaarloog moom ne ko ah attention man bi nga ñëwee dama laa indil code indil la contrat nga xool code bi gis législation yi ci nekk ñu ne la par exemple da ngaa war a réhabiliter da ngaa war a def dépense sociale léegi état bi. mooy def contrôle pour permettre xool est-ce que entreprise yi ñu ngi wégal wala wéyul léegi bi nga laaj lu tax ñu gis ne liggéey bi ndaw na lool lu tax ñu gis ne affaire yaa ngi dem boo gisee réew mi léegi tey wax nañ ci sunu atelier bi contenu local contenu local dañoo gëm ne moo nekk lu nga xam ne moo mën a dimbali réew yi parce que fiscalité bi boo xoolee gis nañ ko 161 milliards la donc bariwul alors que boo demee ci contenu local yaa ngi ci 891 milliards donc différence bi rëy na mais pour loolu il faut que l'État insiste sur le transfert de technologie mm-hmm. maanaam savoir fair compagnie bu fi nekkee ñu fexe ba au bout de quelques années mu am lu mu fi bàyyi su ko defee état bi mën a former ay itam alors docteur Moustapha Fall dina ñëwaat ci yow ci kanam ñu dem seetaan publicité